mbëru géejawaay boo gis léegi jéggaane tuñu te ñoom ñëpp ñooy bokk benn bërëb bi boo toogoon fii tuuti sax léegi champion bi Balla Gaye tamit dina la fi ñëw fekk la fi kon donc ñun ñi nañu bàyyi lu ñuy wax souvent man damay dégg ci réseau sociaux yi ñuy taxaw di naan ay mbër yi dañu am nii problème dañu am ni ñun ñi nekk ak ñoom ñun xam nañu ñoom seen biir ku si nekk li nga yéene sa morom waaw. la kañ nga commencé tàggat. bon mu ngi bëgg a yàgg nag yàgg na. ñaata ñu ngi euh, nii nii ñu ngi commencé di préparer avant doon nañu préparer waaw waaw huit mois et quelque waaw presque un an. waaw bi ñu parce que ñu ngi ubbi salle bi le 7 euh, décembre bële passé salle bi déjà am na un an mais depuis boobu ba léegi ñu ngi liggéey xam nga vraiment amul feneen fu muy dem. fudul fii fii lay ñëw di liggéey bu jógee dunya ak yooyu noonu mais moom euh, dafa am benn taxaw seetlu bu bu bu sénégalais def ci moom maanaam nag que bi ñu xoolee ci carrière am mësuñu ko gis mu génn Sénégal dem tukki comme maanaam tukki dem entraîner comme ni ko mbëri yi ni ñu koy waxee te à tout moment dañuy gis ne bu ñëwee si lamb comme li sénégalais yi gis maanaam du néew kattan macha allah loolu lan mooy secret bi parce que mësuñu gis mu voyage day entraîner yi. waaw c'est parce que yenn mbëri yi ñu ngi dem entraîner mais dama jàpp ne bu ñu demee Europe di entraîner xëy na peut-être foofu dafa am leneen luñ fay wuti mais bu dee pour sport rek si cadre sport nga gëm sa bopp fii nii léegi lépp ñëw na fi. surtout ak nouveau technologie bi am c'est y bon des bons coachs partout fii Sénégal am na ay coachs yoo xamante ne vraiment ñu ngi lay boo gisee coach boo xamante ne mu ngi lay teg si yoon kon il n'en est pas question ngay dem Europe di ko wuti man waaw ñii di dem Europe sax am na à un moment donné boo xamante ne doo mën a récupérer li nga bëgg parce que ñëpp mbokk yi dañuy ñëw ñin ñi dañuy ñëw xëy na da ngay dem Europe pour décompresser wu xam nga mën a toog mën a am récupération bu doy quoi loolu moom laa xalaat ne moo tax ñuy dem Europe mais bu dee pour entrainement rek lu ñu gën a soxla yëpp ñoom fii la nekk Sénégal parce que bu dee diin yi ñu ngi dem diin ya saal léegi macha allah xam nga. Euh, Eumeu Sène ngeen amal affaire de ñetteelu combat. <laughs> xam nga man man moom toujours moom bu boo ko laajee léegi dina la ne man gagneur laa. yow waaw maa ngi dégg nag ñit ñi di wax nii. xam nga dañuy wax si moom rek mais loolu ñuy wax si moom yëpp. ñuy wax ah bon di naan ay moom du du taxaw du day joxe kenn du dem si làmb di may. maanaam dafa défensif quoi du attaque. mais à un moment donné des fois il faut nga défensif. boo àndal nit ah ngay entraîner muy entraîner nga ñëw indi dara nga xool moom psychologiquement moom li nga indi jéemul indi loolu mu ngi jéem a wut ku si nekk da ngay jéem a nax sa morom gars yi bu ñu naxante. moom day rasu nañ ko dem fekk ko fu muy rasu jàpp ko daan ko. Hmm. yow loolu loolu ah, ah, moom itam du def effort. non si waa nag dinaa waxaat beneen affaire gi nga combat bii nii incha allah dafa am loo xamante ne moom man ak moom sama diggante ma moom la daf ma ko dénk se man gëm naa ne loolu lay def. Sénégal. Hmm. si combat bi la ñu xam kan mooy Lac de Guiers. Hmm. ok yaa wax loolu. waaw dañu bëgg mu wane boppam. si hmm. combat bii la koy wane nag. fii la ko bëgg a fii la koy wane. ndax dina wóor ak Eumeu seen boo xam ne daan la benn yoon ngeen mat sinil benn. non loolu yéen xam nga man sax coach laa am foo xamante ne waruma fa egg mais ñun ñëpp dañu seetaan làmb tey bu may entraîné Lac de Guiers ma ne ko combat bi moom ak Eumeu Sène daan bi nii la demee day mel ni damay far comprendre nga moom bu jàppanteek sa waay. na def preuve na ko daan ba toog si kawam ñu xam ne boog moom mooy the waaw. combat bu ku ciy dem. la war a yóbbu euh, physique bu doy wala pois wala lan. waaye lépp ngay yóbbu ñun de en tout cas ñun ñu ngi suñu ruq ñun du ñu wax lu ñu liggéey en tout cas dinañu def physique lépp lu sport laaj ñu ngi koy def. waaw national nationale daa diis de. am na nag li nga xamante ne ñun moom lañ si gën a ñun ñun moom lañ si gën a liggéey. Hmm. moom mooy physique boobu bi boo nekk ah, moom nay takk ay oto di daw ak moom waaw waaw na wut physique bu na mën a bëre lu yàgg rek man lool laa koy dénk si combat bi waaw parce que combat bi man sama combat la parce xam nga dara gënul neex nit boo xoolee interview yu mu mujj def yëpp fu mu taxawee day wax journaliste yi kii gagneur la kii buggul ma perte te du perte du ñu bu ñu tudd sax le mot perte man leer na ma bu ndam rek ngeen eh, bu jàppee waa ji nii. Mhm. si la Sénégal di xam si waa ji nag bu buggee xeex ak moom moom mu woon Sénégal lu mu mënee si. parce que encadré ay athlètes de niveau comme Lac de si parce que bon au fait man yoroon naa écurie. ban euh, waar bu Grand Médine man Yékini Junior dama doon ba léegi maag frère am ñoo yoroon écurie bi foofu comprendre nga waaw fareel Fadel sama xarit la. maa ngi toxu maa ngi koy noo du toxu maa ngi koy lii nuy de passage man maa ngi dëkk unité 25. waaw mais xam nga kaatu làmb dafa am loo xamante ne daf ko laaj. fii laa ñëw waa géeje waaye gis ma si seen bopp comprendre nga awma benn xar ma yàlla ak Yékini Junior nii ak frère am comprendre nga fii laay liggéey si grand bi ubbi saal bi dafa jël saal bi teg ko si suñu loxo ñoom ay mbëru géej waaye ren xam ngeen li nekk si làmb. mbër bu dëkk parcelle du bugg a ñëw saal bi nekk géej waaye di fa entraîner loolu rek moo xaw a indi écart boobu sama diggante ak ñoom. xanaa lag la lim la regretté daa daa bari lim la fay. waaw lu ma du ma taxaw di ko wax fii si télé. ñaata million la la jox. <laughs> maanaam booy lim sax day day ëpp maanaam lu nekk mu ma koy defal daal très franchement. Mm-hmm. waaw kontaan ci yow. waaw mais daal seen champion boobu. déet champion bi ñan ah. champion waa Sénégal boobu ñuy wax noonu am Eumeu seen laay wax bi boo nga liggéey sa coffre bi bu baax. min na géejawaay de loolu nag léegi damay ñëw foo xam ne nii muy ba tey duma génn génn géejawaay ndax ku ne xam ne ne am nga komba Balla Gaye de am na combat guy gi am na combat combat Balla Gaye de Bombardier noo ko gisee. combat bu neex komba bu neex yaa ngi dégg Balla Gaye képp ko xam la dëgër xam Balla Gaye képp ku xam Balla Gaye xam Lac de Guiers kon donc loolu combat boobu moom combat bu neex la su may ñaan nag yaa ngi dégg du sa micro bi laay taxaw di ko ñaan yaa ngi dégg man su may ñaanal ñëpp xam nañ kan laa war a ñaanal. doo ko wax. lu tax ma koy wax sa micro doo wax ki nga ñaan ci combat boobu. su ma ñaanee man xam nga ne man su may ñaan Balla Gaye laay ñaanal kan laay ñaanal ko du Balla Gaye. Ah, moo tax ma ne nga wax ko ko. waaw mais yow du ma taxaw fi sa micro di la ko fi wax nga am lu neex la ko wax yow mais Balla moom rek. yàlla ko yàlla may ndam ci barki Seydina Mohamed. gëm nga ne mën naa ndam ci Bombardier. ci bu ko gëmee. boo mu ne na boo mu ko bi yoon na nga pare de lay lay bañ de. ah Bombardier baax na ñaan yàlla rek bés ba. dégg naa xamewul janj ak joor de Bombardier. xamewul janj ak joor. <laughs> leen nag moom moo ci neex mooy bala Gaye gi préparé ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam te yàlla ko yàlla may ndam. ndax li ñu bokk géejawaay bokk Casamance maa moom doon ay frère yéen a ngi déggante ci combat yi. léegi mu ñëw sax. combat moom moo Bombardier ku dàq bëri. moo kër Bombardier baal ku dàq bëri. waaye yow yaa ngi fi yow. damay laaj di ñàkk fee nekk tax may laaj pour bëgg a xam. mais Bombardier fi mu bëri ba yegg fi ñàkk man man bëri moo ko fi indi ah Balla Gaye fu mu fu mu dem ba yegg si fii man bëri moo ko fi indi. ku dàqale bëri. ku dàqale bëri yow Balla Gaye dafa bëri ay salañ salañ. ba tey tontoo ko ku dàq. ma ne Balla Gaye maa ngi ñëw. Uh-huh. dafa bëri ay salañ salañ. dugg génn ah génn. ba mu est-ce ay salañ salañ ah ah. ah kon mu ngi noonu. guy gi rëg rëg. guy gi rëg ay guy gi yàlla ko yàlla may ndam sama copain boobu noonu hmm. ah. ku mel ni Balla Diouf de laaj naa ko mu jàpp ne moom loolu li mu gis mooy guy gi rëg-rëg combat ba amul danse bu bari ci côté ki nga xam ne moom mooy rëg-rëg parce que daa jàpp ne xëy na moo gën a pare et puis moo man ci guy gi rëg-rëg waaw kenn ku nekk ak am rek Balla Diouf maa ngi koy nuyu en passage grand bu baax boobu noonu yaa la joxe te analyse ba mu joxe moom ci ba am na plein droit joxe analyse bu boobu analyse bu wóor la joxe lu ko wóor moom la joxe moom moom moom. la mu wax moom la wóor moom moom la wóor moom la gëm yaa ngi dégg mais ñun géejawaay waaye ñu am kon nag buy ñaan dañuy ñaanal guy yàlla may ko ndam guy gi moom sincèrement parler ah mu ngi ci de. mu mais képp ku koy conseil ah. na ko conseil mu nekk ci bu baax a baax a baax man du ma kee kenn ñu ne ma yaa mën diw ba rek ngay baissé bras déedéet ak loo ko mën liggéeyal. liggéey daal waaw ah, loo ko mën rek liggéeyal. Ah. gis nañ euh, tamit ci géejawaay des fois ay quelques détails di am ci entre mbër yi mbër yi des fois am ñu génn fii wax ni jàppal bàyyil lan moo lan lan lan moo xew. ban détail moom géejawaay. waa non maanaam noo bu du pas maanaam mbër yi dama gis fan yi ay mbër yoo xam ne ay xale seen ay rak génn daal di wax di di mel ne luy wax lu leen naqari di ñaxtoog yooyu ci seen digganteeg. mais xam nga booy yi dañoo génn wax lu leen métti rek ñoom dañoo génn wax lu leen métti mais bu ñu fàtte mukk ñoom amuñu lu dul seen mag te seen i mag boo boo leen amee problème du réseaux sociaux foofu ñu koy fajee fan rek nga ko mën a fajee moom mooy demal ba këram yaa ngi dégg toog waxtaan ak moom boo mënul dem këram demal xool ay kilifaam nga toog waxtaan ak ñoom yaa ngi dégg ñu wàññi ci réseaux sociaux yi ñuy toog di wax. yaa ngi guy gi seen i mag lañ Balla seen i mag la yaa ngi dégg ñun ñëpp seen i mag lañ kon nag boo ci amee lu la mettre ñëwal toog ak nit ki wax ak moom yaa ngi ñu bàyyi réseaux sociaux yi ñu toog kenn ku nekk di vilipender moromam yaa ngi dégg àdduna du neex neex neex neex ba guy gi bañ leen yaa ngi dégg kon donc ñoom nañ bokk ndey bokk bàyyi àdduna amul solo lépp day jeex dañ bokk ndey bokk bàyyi man loolu rek laa leen di conseillé waaw Balla tamit j'espère bi que mu ngi conseillé xale yi loolu tamit képp ku mënta ñëw taxaw naan lii diw lii diw lii diw lii teg ko si place ne ko hee géej waaye ñun ñëpp benn lañ yaa ngi dégg dañ bokk ndey bokk baay ndax ko kuy jël di indi di indi pour wax noonu lay jëlaatee yóbbu yaa ngi dégg ñun mag yi ñun ñoo war am fulla suñu bopp xale bu ci ñëw dépassé benn borne bi taxawut pour wax teg ko place yaa ngi dégg boo paree nga woo kilif kooku nga xamante moom la joteel nga taaj ko taxaw wax moom nga jubale leen yaa ngi dégg loolu moom mooy ànd. yaa ngi mais bu bu ñu bàyyi booy di di vilipande maanaam seen i mag nii xam la mag itam nañ jox rakk seen cër seen rakk xam la nañ leen jox cër parce que ku lay guddigal di la jox ko cër yaa ngi jox ko cër fonk ko nga xam ne kii dafa bàyyi yitteem yëpp fonk la bul ne rek kii xale la bon warul def dara ci làmb dee du noonu ni nga amee ci làmb moom tam bëgg na amee noonu ci làmb yooyu nga conseillé leen waxtaan ak ñoom ñu bàyyi xuloo bi xuloo bi rapportul kenn dara amul sens amul benn sens waa di ñaan géej waaye yal na fi yàlla def jàmm balan encadré booy yi yaa ngi dégg guy gi ne encadré booy yi yaa ngi dégg la déggee de encadré booy yi Elton ku mu mënti doon Alioune Seye de Abdou Diouf ñu bàyyi booy yi nga xam ñu ngi ñëw di wax képp kuy ñëw di wax ñu teg la place féq pousse la à côté yaa ngi dégg ñu teg booy yi ci yoon parce que ñoom ñoo fii ñëwee ji ëllëg ñoom ñooy ñëw nekk suñu place mais tey bu booy yi jubboowul ak seen i mag nan la ñuy mën a demee ci kanam. amul benn sens na xale yi bokk ndey bokk baay mag ñi bokk ndey bokk baay te nañu wax naa ko wax naa ko ba sonn ñu li nekk fii tant que ko ci biir xol yi ñu fexe doon benn ñu fexe doon benn du ñu avancer mukk du ñu avancer mukk nañu fexe doon benn bëggante suñu biir lépp lu ñu doon mu sincère jamono bu njëkk ba moom la war a indiwaat teg. am te yàlla tax daal am te yàlla tax yéenante jàmm fonkante bëggante man loolu laa gëm ñu bàyyi yii ñii détails ndaw yi di man su ma gisee tamit des fois damay am gàcce. ana sa grand liiru yaa ngi koy gis. jaan jaan mag jaan mag gëj naa gis nag depuis je crois dëj ba waaw dëj ba waaw dëj ba. da ngay na bës de. ak doole sax ni mu ko sax dafa. moom fan yii noo gisee. ban coow. mooy soxna saag yooyu. te nga bàyyi guy gi te bàyyi liiru ah ni mu ko téye ak doole sax waaw ah, moom moom sama waay la moon ni mu gàddoo affaire yi moom kontaan naa ci waaw mais nag lépp loo gis rek bu ñuy bu ñuy ñaax nañ ñaaxaat journaliste yi parce que tey bu fekkee da ngay dem jël ji ku mel ni comme liiru wala jëli ji keneen maanaam il faut être correct parce que pour ëllëg moom moo tax maanaam yiw dafa baax ci doomu aadama bul ne rek damaa bëgg bës rek solee nu ma la neexee mais yow xalaatoon danga war a am njaboot xalaatoon ne am na nit koo xam ne dafa war a gis pour bëgg la pour takk la soxna te bu gisee nga doxalee noonu yenn kàddu yoo xamante ne kàddu yu vulgaire génn sa biir gémmiñ gi boobaa yow nan mën a amee borom kër boo xamante ne tey dinañ ko naw yaa ngi de am na loo xam nit ñi ñu ko war a xoolaat nañ bañ a nañ bañ a ut moom moo tax ñuy def yenn yi yaa ngi dégg loolu baaxul yaa ngi di conseillé sama sœur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk na ñëpp di yiw bu ñuy dem di seeti nit nañu yiw waaw loolu am na solo daal waaw di di masulu liir nag ci loolu nga xam ne moo ko dal xam nga di ko wax ne ni ku dul jum amul yaa suñu mag la suñu yaa ngi dégg di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm saison bi kañ nga bëgg mu ubbi ay waay lu mu teel a ubbi dina baax ah. na teel a ubbi ñu jox ñu suñu dat ah di nuyu tamit CNG bees bi nga xam moom moo ubbeeku ah suñu papa Bira Sène di ko wax ne commencement bi nii lépp lu mu teg macha allah yal na ko yàlla seelal yan bi ci boppam yàlla defal ko jàmm ci barke Seydina Mohameda ah, du nuyu waa CNG bi yëpp ñu kenn ministre suñu papa Matar Ba ministre de sports yaa ngi dégg na gaaw ubbi mbir mi affaire yi dox parce que ñun amuñu lu dul làmb amuñu lu dul bégal doomu aadama yi tey boo ba bu sport yenn sport yi ubbee koo kay war nañ mën a débrouiller yow ñu ubbi ñu suñu làmb ñu daan suñu doole. yaa ngi dégg ñu bëri ah ñu am loo xam dinañ ko mën a yóbbu suñu njaboot. xam nga Equivox bii di wax ak yow tey. Equivox ban. mooy site bii waaw site bii nii. waaw non site bii kay moom Babacar da nga cee jekk sax. Ah. da nga cee jekk. ak bula bi nii. waaw gis nga. turu non dafa rafet. Ah, non caaj bi nii dafa logo bi dafa génn nii dafa rafetal nii nii nii affaire bi waaw. xam nga ren ñoom tëgg nañu la làmb làmb ren. Ah G5 lañ tudde làmb ji defe naa xam nga franc. waaw xam naa Franc Franc jantal jantal jantal booy bu baax. xam nga Tyson 2. waaw xam naa Tyson 2 Tyson 2 moom tamit borom baax la dañ doon dajee géej mu nekk nit ku baax a ah. heure bu ñu rombee dañuy nuyonte foofu xam la nekk nit ku baax. xam nga Mama Lamine bu Lamsar. waaw Mama Lamine tamit xam naa ko. mais lamb yooyu neex na de Mama Lamine. waaw xam nga Garga 2. xam naa Garga 2 kay mais combat yi neex la dëgg ah. yëpp de Equivox ko de. non Equivox moom beneen affaire la. waaw sincèrement parler euh, yéen a ngi dundal làmb nag ah, uh-huh. ah man la déggee de moom sincèrement parler maa ngi seen ginnaaw waaye. te dama lay yi des na euh, xale ba ñuy wax caatu ngéwél ak ki nga xam ne ni moom mooy alias biram bu bawal. non ñaar ñu ëpp uh-huh. mbooloo ñaari borom mbooloo waaw keroog seetaan naa seen i face à face mais ñaari dar nag ñooy daje. ki la meilleur gagnant ngeen góorgóorlu uh-huh. bu baax a baax a baax a baax. mais des na ba tey Baye Mandione Junior rakku Baye Mandione ak Fourier bu Grand Yoff ah sama waa ji yéen li ngeen tëgg neex na di ku nekk seen ginnaaw xanaa liggéey rek ah déet wax ma ku nekk seen ginnaaw bëgg a liggéey ku nekk seen ginnaaw soo bëggee liggéey yàlla mi yàlla mi ne ci ginnaaw ñëpp lamb <laughs> nag sincèrement parle yéen a ngi koy dundal parce que lii dafa neex nga yor sa site xam nga di bàyyi xel jeunesse bi pour rek ñu bañ a génn dem defi leneen mhm. loolu dafa neex ci xol yaa ngi dégg sincèrement parle seen site bi moom yàlla na ko yàlla yóbbu ci kanam a kanam bu mag ba nag drapeau docteur Macoumba Diouf la Seydou Louis Senghor docteur Macoumba Mero Lat Mbengue sama xarit. Seydou kan. Seydou Louis jigéen la non lii suñu jigéen la. Ah, xam ah, ne xam nga lii sama Louis la. waaw maa ngi lay nuyu en passage ah. di sa drapeau boobu noonu yàlla na ko yàlla def waaw drapeau sa kër googu yàlla ko yàlla def ay drapeau yu drapeau sama Louis la. yow xam nga si dara mu nekk nit ku baax sama xaritu yaay la woon nag. wallaahi sama xarit yaay dëgg la woon. waaw yal na ko yàlla defal jàmm drapeau bi nag yal na yal na yàlla nekk ay drapeau yu drapeau ci barki Seydina Mohamed tamit di nuyu waa saal bi. waaw waaw waaw. waa saal bi moom man aw fayam dama koy wax waxaat yal na ko yàlla defal jàmm si Thiam yal na ko yàlla defal jàmm di wax patron saal bi maa ngi koy wax wax naa ko waxaat ko Thiam bu desee ci saal bi mu may gis ci saal bi Thiam bu poussé dem yoona ma ànd ak dem. parce que caam sama lépp la xol bee rafet xol bu rafet la yor mook sama doom nday waaw ñoom dañuy sonn samay mbir parce que Seydina Mohamed kii non beneen affaire mention spéciale di sant waa écrit wàllu ñëpp bàyyiwuma kenn Macha Pereira Orka Aline Sey 2 ah waa écrit wàllu ñëpp bàyyiwuma kenn ñoom dund ñoom ñoom ñoom kii euh, papa booy jinne ah borom jinne yi temps yi dafa bëri ay jinne nag borom dégg mën a papa booy jinne borom jinne yi waaw papa booy jinne di nuyu chéri Ndeye Gueye ah borom eh, cam ma ci kanam waa gunaas bëgg naa leen la dëgër doy bëgg naa leen ñëpp na leen jàmm sonal ah jaajëf